bi la lu doy waar day moo am ca Louga gee libération yi ne inacceptable lii kenn waru koo nangu laa wax ah, waaw ndaw si day asu soxna waaw daa mujj génn àdduna te moo day urgence césarienne ci boppam kon lañ ko waroon a defal ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga waaye docteur ya fa nekk day faale wuñ ko laa la wax dama ne la 9 suba ba mu tegee fanweeri minute ba 5 heures 30 du matin laa la wax allahu akbar te gis nga certificat de waaw amul signature te nee nañu day daa feebaroon rek daal dee mort naturelle la quoi ngir nëbb nag musiba mbaaba kuma bi nga xam ne kon moom moo am ca bërëb boobee te ndaw si day da doon yuuxu naan sonn na ay waay ngir yàlla sam bi ci boppam dane ko gis nga boo noppiwul sa yuuxu yi lée danaa génnee sa jëkkër génnee sa yaay ci néeg bi chambre bi waaw yaay ja ca boppam nee na son sonnoon na genn xeetu sonn goo xam ne waaye dara saa sam ci boppam naan ko du ma dellu ginnaaw parce que yow programme wuñ la tey allahu akbar bakkan bu rot la de bakkan day rotati na réew mi ko tijjee ne